أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو أحد ونشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى كلمه التقوى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى يقول جل في علا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan jéggal suñuy bakkaar di ko ñaan mu gindi ñu teg ñu ci yoon siraat mustaqim moom mi nga xamee ni képp ko mu teg ci boobu lay yoon texe nga waaye képp ko mu seetaan ci maanteem ba nga jàdd boobu yoon sanku ji amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla yaati bi siraatul mustaqim ñuy seede ni moom buur yàlla amul kenn ku yoo jaamu jaamu ko di jariñ ñàkk koo jaamu di loon ku dul moom allah subhanahu wa taala moom kese mi jurul kenn te kenn juru ko moom yàlla mi nekkul naw la ci kenn ñu ngi seede ne suñu sang muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam la ndawam la tànneefam la mooy wootekat wu rëy wa ci lii di ragal yàlla mooy du digle lépp lu yàlla wax ne dañ ko def ñu war koo def ca nam ko digle waaye daan tere lépp lu yàlla tere ñu war koo bàyyi nekk na ko yàlla tere moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla dina desal na ci moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal boo bis nañ ci di taxaw mbokk yi ñu ngi dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala te xam ni yàlla mu ngi ñuy fuglu mu ngi ñuy bàyyi xel yàlla ngi dégg ak a gis lépp loo xamante ni ñu koy wax ak a jëf mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yee amal ci lii di àdduna ak dayoom ginnaaw bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala bi ñu sàkkee wàcce ñu kaw suuf daf ñu wax hadaf bi mooy wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna allaha huwa arrazaqu dul quwwati almatin yàlla mu ni sàkkuma nit ak jinne wàccee leen ci kaw suuf lu dul ñu jaamu wutuma ci ñoom ñu may liggéeyal ngir wërsëg wutuma ci ñoomit ñu may liggéeyal lu may dundee man yàlla ndax moom yàlla mooy arrazaq mooy kii wërsëgale jaam yi mooy borom kàttani lépp mooy ki telewul dara moom allah subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci xadis mu ni addunya mal'una adduna bii yàlla mi ko sàkk gën ñu koo xam fuuf da koo sàkk ba pare moolu ko ngir ñàkk solo gi àdduna ñàkk solo mbokk yi àdduna su amoon solo ci yàlla subhanahu wa taala kon ki weddi yàlla du fi naan même bu dee sax topp lox ñàkk solo àdduna tax na doomu aadama yi di fi dund fitna bu nekk naqar bu nekk tiis bu nekk jafe-jafe bu nekk ngir àdduna ñàkk solo bi nga xamante ni ñàkk na ko solo moo tax yàlla subhanahu wa taala ñëwaat ci alquran dañu wax mu ni ilamu xam leen ni annama al hayatu dunia ni àdduna bii ngeen nekk di ko dund sàkkuma ko ngir ay fooki caaxaan indiwuma leen fi ngir ngeen di fooki caaxaan sàkkuma ko it ngir luxe ku nekk di won sa morom ni la maa la ëppale sangam maa la ëppale sangam di ëppalante ci wàllu luxe wa tafaaxurun kenn ku ci nekk sax dem bay egg bi puukarewu sa kaw moroom ci loo ko ëppale ci ay daraja lu nekk ci yow wa takaasurun fil amwaali wal awlaad yàlla mu ne sàkku ma leen wàcce leen ci kaw suuf ngir ngeen di ëppaleen ci ay alal ndax moom yàlla mooy kiy séddale moo jox kii xañtale ci suuf yàlla moo jox kii njaboot tamit xañtale njaboot yàlla mu nekk loolu moo tax ma sàkk leen ci kaw suuf ngeen di puukarewu mbokk yi yàlla suñu borom mu ngi wax ne bépp xéewal boo xamante ni gis nga ko ci kaw suuf mu lay yéem lool nag yàlla mu ngi wa in min shay'in illa indana xazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum nee na ci kaw suuf lépp loo fiy gis mu lay yéem nit am ko ba mu yéem la lool yàlla mu ne xamal ni faman yàlla ay magasin laa ci yor yoo xamante ne doo yomboo ko dara nag sama jaam bi donc lu moo tax ma sax mbokk yi kii di Abdullah ibn Amr ibn al-As dafa bokkoon ci ay kàddoom muy wax ni i'mal li dunyaaka ka annaka ta'iishu abadan wa'mal li axiratika ka annaka tamutu gadan nee na adduna bi ne ni nga ko war a jàppee mooy ni da nga ne ko war a nekk di jaamu yàlla ba mu mel ni dootoo fi jóge lépp loo def mu tudd jaamu yàlla boo ca noppee rek xoolakal beneen xeetu jaamu yàlla booy def boo xamante ni bu yàlla gërëm wante li ngay liggéeyee sa àllaaxira nag ci àdduna mooy lépp looy def nga def ko te yàlla tax sellal ko ba mu mel ni lii de su ma ci noppee rek faat laay def doomu aadama bi li muy def gëm ni lii de amaana su ma ci noppee rek mën naa faatu te ku faatu yàlla xisaab la loolu di nga ko jox gëdd def ko li nga xamante noonu la ko yàlla digalee ànd ak sell yàlla mu ne wa mal xayaatu dunia illa laibun wa lahu wala daaru axiratu xayrun lilladina yattaqun afala taqilun yàlla mu ne àdduna bii de sàkku ma ko ngir mu nekk ay xaw aki caaxaan ci ñu bari ñi nga xamante ne jaam noonu lañ ko jàppee wante dama ko def ngir ngeen liggéeyal ci ëllëg fa ngeen jëm ci yawmal qiyaamati te loolu ñu ko xam dëgg mooy ñu ragal yàlla yàlla moom ndax du ngeen xalaat yéen sama doom mbokk yi yàlla suñu borom àdduna bi laataa mu fi wàcce dafa am ay maraaxil benn marxala bu njëkk a jaar ak ñun ginnaaw ñuy gane ci àdduna muy étape bu ñu yàlla di jàngale ginnaaw étape boobu mu indil ñu beneen étape indiwaat beneen étape étape bu njëkk bi mooy fii ñu nekkoon ci suñu biir wayjur laataa ñuy gane ci àdduna foofu amul kenn koo xamante ni fekk nga fa yàlla di ko dimbali ci façon gi mu war a façon doomu aadama ci biir nekk ci biir ci biiru yaayam fala yàlla xotte i bët génnee bakkan sàkkuñu fi ay suuratin macha arakaman ba ngay génn di gane si àdduna te étape boobu mbokk yi la ko nit di dund neuf mois la mën nañ koo xayma su amee exception mën na kaa néew wala mu gën koo bari sax waaye neuf mois ngay dund foofu soo gane si àdduna mu def àdduna bii na nga war fee dund dund goo xamante ni bi nga fiy gane si yàlla mu ne indaale woo dara dara dara topp la indaale woo xam-xam bu dee ne da ngaa dem ba am xam-xam indaale woo daraja liir bi lañ la doon woowee indaale woo fi dara yëre sax indaale woo ko woon yàlla dañu jàngal nag ni étape bii nga ñëw fii nii lépp lu ma la fi jox ci alal ci njaboot ci garat ci xam-xam ute yi la bu ma la jox ngir war ma see jaam ndax boo rombee boo bëlee étape marxala bi ngay jëmaat mooy mar mooy xayaatul barzaxiya muy dund barzax mooy nit ko su faatoo fenn rek lañ koy jëmale mooy ci bàmmeel ak loo mënoon a am ci kaw suuf doog ko yóbbaale na du kër ya du oto ya du alal du njaboot lenn du la ci topp lenn kese nga fay teg mooy jëf yu baax di nga doon jëf moom nga fay fekk sa biir bàmmeel nga war faa dem ñu laaj la laaj yoo xamante ne nag na nga doon dundee ci kaw suuf xasaba na nga doon dundee noonu ngay tontu ci laaj bi day laaj muy fitnatu xab muy ñaareelu étape boo xamante ne alayhi salaatu wasalaam nee na sa biir bàmmeel imma mu nekk rawdatun min riyaadil janna jardin ci biir jardin aljanna bi lan lañ ci yàlla defal wala mu nekk xufratun min xufari naar mu nekk xur ci biir xuru safara yàlla ci yàlla musal mu ñaareelu étape boo xamante ni ginnaaw xayaatu dunia bi fa lañ jëm muy xayaatu barsaxi ñetteelu étape bi wala ñeenteelu étape bi moom mooy qiyaamu saa mooy taxaw bi nga xamante ni moom la ñuy taxaw nag suñu kanamu boroom foofu nag mbokk yi suñu biir way jur foofu yaa ngi ko doon dund am na koo xamante ni fa la jaare sax faatu génnul àdduna am koo xamante ni dund na ci àdduna bi xasaba li nga xam ne am na ko yàlla nattale lu mu war a dund ci kaw suuf waaye kullu man alayha faat képp ku fi nekk ci kaw suuf da ngay faat kon faatu day am nga dem barzax yi ñu delloo la sa koo qiyaamu saa nag bu ñëpp génnee taxaw jàkkaarloo borom subhanahu wa taala foofu nag day amaat kooku dee ci boppam la yàlla di rey lan moo fa def mooy xaalidiina fiiha biir aljanna yàlla ñu yàlla boole ñuy bugg ci ci kuréel gi dugg biir aljanna wala kuréel bi nga xamante ni ñoom ñoo jëm fi saxiir ci biir safara yàlla ñu ci yàlla musal muy bis bi nga xamante ni mooy bisu xisaab bis bu yàlla di attee kenn ku nekk lam la joxoon ci kaw tuub nga war ko see jaamu allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana barakallahu li wa lakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di sëmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu taxawaay ñaareel ba tey ci àdduna bi yàlla subhanahu wa taala di jàngal xamal nañu lu ñàkk solo la li yàlla tax wàcce ñu mooy ngir jaamu ko fab bu ëllëg loo xamante ni moom la ñuy fay yàlla ne yaa ayuha nnaas ay ngeen nit ñi inna waada allahi xaq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور yàlla dañu bàyyi loo xam ci àdduna ni kër bu waree la kër goo xamante ni bu ko jàpp moom jàpp la ndax lépp loo fi mën a mën a am fii ci kaw suuf booy dem da nga ko fi bàyyi àdduna kon lépp lu mu la joxoon booy dem da koy fokkati bàyyi la nga desal li nga xamante ni mooy say jëf ju sell wala jëf joo xamante ni wala yaatubillah ëllëg yàlla mën na la cee dugal fi saa yi lii di dayoo àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësoon na ñëw ci hadisu jaabir radiallahu anhu muy yonent bi sallallahu sallam dafa romb benn mbote bu dee mu mu ràgg nag mbote mu ràgg waaye dee teg ci mu ne mu jàpp ci nopp bi moom alayhi salaatu wasalaam yëkkati ko mu ne kan mooy ñëw ma jaay la ñëw saxaaba yi ni ko radiallahu anhu lii de bu doon dund sax soxla wu ndax non seulement dafa raag bi waaye dundul sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen fa wallahi la dunia ahwanu ala allahi min hada alayhi mu ne lii ni mu ñàkkee solo ci seen kanam noonu la àdduna ñàkkee solo ci kanamu borom bi subhanahu wa taala moo tax moom alayhi salaatu wasalaam bu waxa ni law kaanat dunya taalimu inda allahi janaha bauda ma saqa qatiran minha surbata ma nee na bu fekkonte ni àdduna bi am na solo ca yàlla kon ki ko fi weddi ñu koy wax kéefar bu fi naan sax même bu dee sax topp ndox bu ko fi naan mbokk yi àdduna bi bu amoon solo yàlla du fi jëlee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii du kërub fay fële mooy kërub fay moo tax alayhi salaatu wasalaam ba mu tëddee feebar lool Fatima fekk ko ni ko yow bàyyi booy kañ ngay noppalu ndax alayhi salaatu wasalaam ba ci jeexitalu dundam léppam ak jàngal la moo tax doom ji yërëm ko di feebar gi mu feebar moom alayhi salaatu wasalaam laaj ko yow kañ ngay noppal mu ne ko insha allah tey jii rek sa bàyyi bi nga gisoon bis boobu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna kon moom alayhi salaatu wasalaam ci jàngalee dundam yëpp da koo jàngale ci ni ñun dañoo war a jaamu yàlla ci kaw suuf bañ fay wuyu moo tax yàlla lu ñu dénkaat ñun ñi nga xamante ne ay borom njaboot dañ responsable lañ mu ne yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñi gëm laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dikrillah wa man yafal dalika fa ulaika hum alxaasirun wa anfiqu mima razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum almawt fa yaqul رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل mbokk yu bàyyi xel dénkaane borom bi subhanahu wa taala ci aayaat bi mu ni ay yéen ñi gëm imma dama laa dénk alal wala ma dénk la njaboot bu leen sàggan mukk ci seen njaboot bi ci fexe leen a jokkale seen borom subhanahu wa taala seen alal bii ma leen dénk ku ci profitoowul nga def ci ci yoonu yàlla profitoow dimbali ci néew bi doole nee na ku ci deful loolu def ko walaay ko xamul faasoo kooku mooy ki fekk ndax booy faat alal bu nga bàyyi ba ci nekk sa compte bancaire dañ koy génne miraas ko séddale doo ci am lenn tuyaab la nga amoon tuyaab mooy la nga defoon ca yoonu yàlla moo tax yàlla ne wa anfiqu na ngeen di génne joxe mimma razaqnaakum ci li ma leen wërsëg min qabl avant nag li leen liy dof bànneex yi di la dab muy dee ndax moom bu egsee amul nga naan ko yow yàlla may ma tuuti ma delluwaat ci àdduna fa asaddax ma saraxe ngir ma bokk ci ñi nga xamante ni asalixun la ñi nga xamante ni ñoom ñuy texe ñu baax ñuy texe ñu def yàlla mu ni walan yuaxir allahu nafsan ida jaa ajaluha bu ab ba jotee ndax yàlla moom xadirum bi ma taamalu ku xarañu ci lépp lu muy def bokk yàlla yàlla xiir ci àdduna bi ñu nekk ci di ko jaamu rek yàlla ñu war a teg ci yoon bii di yoon siraatal mustaqim bu ñu ko yàlla wone ba teg ñu ci mu faat ñu ci yoonu siraatal mustaqim yàlla ñu yàlla boole si ñi nga xamante ni fil xayaatil barzaxiya dañuy dund rawdatun min riyaadil janna daani yàlla ñu yàlla boole si ñi nga xamante ni ëllëg bu ñuy dékki dañuy jàkkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla boole ñu ak moom dugal ñu bil aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين في غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله